dañ fi ñëwoon tey pour def suñu conseil syndical national ñoo ngi ko def nag si benn contexte bu particulier parce que tey dañuy doon boole mooy syndicat autonome des travaux de l'électricité bu suñu camarade Souleymane Souare jiite tey ñoom dañuy ñëw tey ñu fexe ñu ñëw fusionné ñu dugg ñu ci biir SONATEL ñu nekk benn syndicat def nañ ko ci teewaay suñu camarade secteur général bu CSA Elimane Diouf si loolu lu ñu rafetlu la loolu dina tax tey Senelec syndicat yi gën a wàññeeku defoon nañ ko 2018 INSEP duggoon rëcc wuñ ko si loolu tamit ñoo ngi def ay jéego yu mag parce que biir Senelec am na benn cadre bu ñuy tuddee CSTS benn cadre unitaire ñu tuddee ko CSTS muy convergence syndicale des travailleurs de l' électricité kooku day fekk problème yëpp majeur yu Sénélec yi foofu lañ koy regle si situation Sénélec leen rek la ñu am mooy tey mënuñu ñàkk ba ñu wax filialisation bi parce que dafa am ay lëndëm lëndëm yu bari loo am si filialisation se yaakaar naa ay at ñoo ngi koy wax lenn rek lañ ne ay lëndëm lëndëm mooy su fekkoon état bi dañu jëloon mu boole woon ñu si départ si projet bi yaakaar naa dinañ doon mën a am suñu xel dal ñun en tout cas ñun travailleur suñu xel dalagul si loolu nan lay mën a comprendre mooy état du Sénégal ngeen doon dégg Sénélec moom at yi yëpp moo ngi doon def ay bénéfice mooy Sénélec ñëpp gis nañu changé na délestage yi presque amatul tey loolu war nañu mën a may Sénélec ak gaz bu ñëw bi ak pétrole bi ñu mën a jëlaat Sénélec jox ko boppam mooy askan bi moom ko mun ñu ñëw nag mu dem bay bëgg a baax ñu ñëw joxaat ko ay privé loolu vraiment dafa tey suñu xel moo tax fii fu ñu bëgg def filialisation vraiment du luñ gënal parce que ñun lenn lañu bëgg mooy Senelec na des Senelec mooy mooy mooy yaa mooy yëpp ba pare ñu am souveraineté énergie mooy ñu moomal suñu bopp suñu énergie parce que énergie moo yor réew beneen bi mooy tey Senelec moo ngi traversé ay jafe-jafe si affaire u ay finance lan moo ko waral mooy tey état bi si bopp mooy client yu mag a mag si état bi bokk na si ñoom nangu ñu fay état muy administration fayul muy forage muy collectivité locale éclairage public muy en même temps ADM nga so jëlaalee tamit terre nga jëlat AIBD ñëpp dégg nañ leen fan directeur bi dine ñom lu waron fay en ba 2029 ñom fay nañ ko yëpp mu jeex tay ñom ñu yoruñu cinq milliards mun ñu ko fay loolu yakarna suñ ko defee Senelec dina dem ba du am xaalis du mën dem sa charger mu mën ko def du mën ti jënd ay carburant c'est su boba ay mu am c'est sénégalais loolu duñ ko bal Senelec donc tamit ñu def appel aux autorités pour que ñom ñu fexé ñu jox ñu xaalis ñu jox ñu suñ xaalis pour que ñu mën faire face au charge de Senelec tay loolu rek lañu ñaan état mo moo ñu dimbale parce que service public lañu né ne kon sax dañu néw dañu amay def non amuñu déficit suñ xaalis mo ngi si loxo mo ñëpp doole ñi tandis que clients yu ndaw yi ñoo ngi fay ku am benn facture ñaari facture ñu coupé la mais ñoom ñu yoruñu ay milliards ñu bañ ñu fay donc état bi nag nañu fexe ñu fay suñ ko deful dinañ am ay jafe-jafe seetu baax si